moo tax ma ne leen Macky Sall fii mu toll nii ci ñett la yaakaar mi ngi yaakaar ci ay milices jël na ay nit ñun xam nañu ñan ñooy recruter ministres yi xam nañ fi ñu dëkk yor nañu seeni information yéen jeunes yi laay wax bis bu milice génnee songu fi ay nit fu ñu munti nekk fekk leen foofu ba ci seen biir kër fekk leen foofu te li gën a yéeme les forces de défense et de sécurité xam nañ milice yi de am na milice yoo xam ne ñu ngi ci biir police bi te kenn du leen jàpp ñun bi ñuy wax gatsa gatsa police ak gendarmerie taxul ñu wax ko de waa APR lay wax si vous avez quelque chose entre les jambes bàyyi leen police fële ngeen bàyyi gendarmerie fële ngeen génn jàkkaarloog ñun. APR laa wax de ñun xeexuñu ñun yoruñu armée yoruñu ay ngàndaay songantewuñu ak police ak gendarmerie lu dul ñu war a def suñu manifestation police ne du fi amee ñu ne dina fi amee ñu def li ñu war a def mais su weesoo loolu ñun bi ñuy wax gatsa gatsa xam nga ñañ la ñuy wax c'est poltron de l'APR sàcc xaalisu réew mi dem di fay ay milices foog ni loolu mun na leen sauver yàlla xam na ni bu police jóge woon fii gendarmerie jóge fi ñoom ñëpp ñu génn réew mi. dama ne réew dafay torlu à des moments historiques moment historique boobu lañu ñu dafa am moment yoo xam ne le peuple doit prendre son destin en mais yeneen réew yi ko def gënuñu ñu. gënuñu ñu wallaahi yéen laa koy wax la jeunesse 2024 ñu soppi réew mi 2024 changement commencé fi ba faw 2024 yorin gu ñaaw gi ñu yor réew mi jóge fi définitivement loolu nag lañ leen bëgg a xañ est-ce ngeen ko nangu moo tax ma ne leen le 14 le 15 le 16 autorisation ou pas ñun ak Macky ak justice am ak police am ak gendarmerie fii ci réew mi police laay waxal ak gendarmerie ñoom xam nañu ñan ñooy les milices ñemewuñ leen jàpp te pourtant léegi balaa ñuy commencer meeting bi jàpp nañu kaba bi dëkk fii Parcelles Assainies police jël si na ko mi ngi commissariat central suba ñu xëy ne terrorisme lañ ko attaqué ñu ngay wër seen renseignement généraux naan dañoo jële ay nit Casamance andi leen fii ñii nekk fii yëpp waa Ndakaaru lañu waa Casamance ñu ngay manifester Casamance waa Mbacké dinañ manifester Mbacké waa Ndar dinañ manifester Ndar kenn importé wu fi ay nit Macky Sall nag li ma koy wax du bëri dafa jeexal tak tak tak ñaar moo am Barthélemy wax na ko na rafetal demam ni Ablaye Wade demee woon Abdou Diouf demee ko mu dem bàyyi ñoog suñu réew ci jàmm defu ko nag ah Cheikh Tidiane yu wax Cheikh Tidiane yu wax na ko de demam dina ñaaw lool lool lool dina ñaaw lool may lancer nag un appel à nos forces de défense et de sécurité ñun li ñu gën a am li gën a li gën a sacré ci Sénégal mooy armée sénégalaise l'armée sénégalaise moom la sénégalais bëgg kenn ku ne ci ñun buggoon na nekk solda kenn ku ne ci ñun buggoon na nekk soldat ñenn ñi jot nañ koo nekk comme Déthié Fall ñun ñii essayé nañu concours yi sax buggoon nekk soldat parce que amul lu gën a jekk joxe sa bakkan ngir sa réew armee sénégalaise boobu yàgg naa sauver Sénégal yéen a ngi fàttaliku mai ab professeur bàcci li mu ngi ñuy fàttali lettre bi nga xam ne général Jean Alfred Diallo moo ko bindoon président Senghor ne ko l'armée ne te laissera jamais marcher sur le peuple te lii ak lii ak lii na ko bàyyi lii ak lii ak lii ak lii ko def loolu mooy l'armée sénégalaise armée boobu mooy le salut du Sénégal à cette armée là ma ne leen bu ngeen nekkee dans les tranchées en Casamance ou partout dans le monde nekkalu leen fa Macky Sall peuple sénégalais ngeen fa nekkal président dem na président ñëw l'armée demeure c'est une armée républicaine c'est une armée du peuple sénégalais bu dee fi ñu jëm Macky Sall bëgg na def ni mu def nous demandons à l'armée de jouer son rôle comme ni mu ko mës a te xam nañu nag li xewaa ah. ndax Macky Sall li muy bëgg a def ci biir armée bi depuis quand aide de camp aide de camp kañ la musa doon général ci armée bi aide de camp président de la république jël benn aide de camp général Sélé Maysa Sélé bugg koo teg ci kaw semga bi nga xam ne sax moo jiite armée bi parce que rek am na lu mu bëgg te suñu armee républicaine bi du ko musa nangu je dis à l'armée vous avez le soutien du peuple sénégalais reste une armée républicaine restez auprès de cette jeunesse restez auprès de ces femmes restez auprès de ces personnes âgées le Sénégal vaut plus et vaut mieux que Macky Sall gendarmerie nationale maa ngi leen di ñaan ñu delloo ci seen xel fi mel ni ku dem cité kër góor gi ni ma toog fii rek xam naa ni lu ëpp 1000 gendarme ñu ngi ko yóbbu cité kër góor gi nañu delloo ci seen xel ñun gendarmerie mënuñoo tere egg fi ñuy egg polis mënuñoo tegg egg egg fi ñuy yegg parce que le peuple sénégalais est le seul souverain te kenn mënu koo tere yegg nañu bàyyi di essayer topp Macky Sall dans son aventure sans lendemain le Sénégal vaut cent fois mieux et plus que Macky Sall et son petit groupuscule la gendarmerie n'a qu'à rester une gendarmerie républicaine la police n'a qu'à rester une police d'État te ñu bàyyi seen tappale yi ñu nekkee nii mbokk yi jamono di yu jamono discours yu bëri le 14 def nañ suñu meeting newoon nañ leen dinañ ko def ci nii wala ci nële le 15 manifestation sur tout le territoire national le 16 manifestation sur tout le territoire national te ma teel leen dànkaafu nag ñoom kenn duma tànnal man ban yoon lay jaar loolu loolu buñ ko buñ ko dugalee ci seen bopp fu ma neex lay jaar ci ndakaaru nu ma neexee lay daagoo dootuma ko nangu te le 16 nag c'est une audience publique bu leen kenn imposé ne leen yéen amu leen droit dem tribunal ñi fi teew ñëpp nañu dem tribunal audience publique la kenn amul droit ne nit ñi duñu dem moo wax nag ni le 16 mënuñu juger lii de parce que paraparaxe bi ñuy def jaru ko récuser nañu juge bi parce que juge bi mbokk la ci ñoom xarit la ci ñoom li tax ñu tànn ko xam nañ ko juge bi mënul juger dossier bi samay avocat récuser nañ ko na teg dossier bi ñu désigner beneen juge bu objectif